merci monsieur le président ñu ngi lay nuyu bu baax monsieur le ministre du commerce ñu ngi lay nuyu di la féliciter encore ci sa reconduction di nuyu monsieur le ministre de l'économie des finance et du budget di nuyu monsieur le ministre du travail di nuyu fonctionnaires yi ngeen al yëpp le directeur général du budget monsieur ministre Sénégal dund bi seer na la ñu wax mais soo xoolee li nga xam ni moom la ci gouvernement bi di def président di ko ci def su ko ci deful woon defe naa ni dina gën a cher je crois que keroog ministre des finance defal nga ñëw benn tableau boo xam ni wax ñu li nga xam ni moom la gasoil waroon a jaar bu fekkoonte ni kenn subventionné wu ko nga wax ñu li essance waroon a jar bu fekkente ni subventionné wuñu ko dund gi nag lépp ñu di ko consommer fii surtout ci céréales ceeb la mais ceeb bi kenn lekk loowu ko kenn am na réew yoo xam ni soo fa demee li ñuy lekk ci ceeb barewul produit yi nga xam ne moom la ñuy lijj bay ca réew ma moom la ñuy lekk mais fii boo xëyee ci cafétéria bii dem di ndékki mais beñu dugub bi mooy jëkk a jeex beignes à yi ak yeneen yi pourquoi cette habitude la alimentaire mënuñu def toute la politique centrée à ce niveau là nous importons énormément de blé mais arrêtons d'importer le blé consommons nos produits locaux le pain de mil et la le pain de sorgho et la le pain de maïs et la toutes ces expériences là ont été testées par l'ITEA qui a mis énormément de prototypes à ce niveau-là li nga xam ne nag bayuloo ko et c'est tout à l'honneur du président Macky Sall parce que quand il venait le riz paddy on était autour de quatre cent mille tonnes par an aujourd'hui nous sommes à un million cinq cent mille tonnes et nous tendons nous tendons vers l'autosuffisance alimentaire c'est une question de mobilisation de moyens c'est une question de politique et tous ces si les deux facteurs sont réunis nous allons vers l'autosuffisance alimentaire donc loolu également il faut que nit ñi ñu reconsidérer waat surtout seen consommation yi di lekk produit yi nga xam ne moom la ñuy bay mais également ñu dem pour liggéey aussi man tey su ma jëlee suma doom ma war ko jox 6 million mu dem ne Karagua xaw ma dina dugg xaw ma du dugg avec toutes les peines mais 6 million bu demoon mu béy non seulement économie dina développer mais dina am lu ëpp loolu fuuf mais duñu ko def ñi nga xam ne ñooy pousse xale yi pour ñu dem ñooy wëlbatiku ñëw di critiquer la vie le pétrole nous allons en produire bientôt Dieu merci mais jusqu'au moment ou la production ba tomber mais nous ne maîtrisons pas les flux d'augmentation di pétrole bu boobaa tout ce qui est imputable au pétrole parce que pétrole butéel ndox bii ngay kii sax bi ngay naan sax si boobu mais pétrole la ci lañ jaar pour liggéey ko donc loolu également mënul nekk loo xam ni lu yomb la par contre monsieur le ministre quel que soit le prix les commerçants surtout les détaillants doivent être encadrés doivent être accompagnés et ça c'est là où est-ce qu'il faut pas aujourd'hui restructurer réformer les services du commerce ou faire revenir totalement le contrôle économique parce que boutique bi ci koñ bi lu ko neex lay jaay ci li ci ëpp bon je n'ai contre ces ces boutiquiers mais lu leen neex la ñuy jaay da ngay gis bii boutique muy jaayee cent franc bii di jaayee cent vingt cinq di jaayee fanweer bii di jaayee fanweer ak nangam or ça ce n'est pas normal on doit les encadrer pour que ces prix là mu nekk am benn homogénéité compte tenu du niveau fi ñu koy jaayee ak ci région bi par contre les pro nos produits na ne doivent plus être vendus à l'étranger à l'état primaire développons le secteur industriel notre arachide traiton la triturons-la prenons notre huile qui est meilleure que les huiles de palme qui ont beaucoup de problèmes parce que ces huiles là nga koy taaj bidon bi bari bidon bi way bu ko defee day am problème de santé je crois que ça également il faut mettre l'accent sur des investissements qui nous mènent tout droit vers l'autosuffisance alimentaire mais qui vont contribuer à l'équilibre de notre balance commerciale et de notre balance de paiement je crois que loolu mooy politique yi am solo mais toog fii dëkk bi cher na dëkk bi cher na yow doo dimbali kenn yaa ngi tëdd Dakar yow yàq dong ngay def yàq butigu jàmbur yi ñii di yenu ay saaku ceeb ñii di yenu ay bidon diwlin nga dëkk glorifié ca boo jógee naan dëkk bi dafa metti da ngeen di caaxaan